bonsoir Viviane. bonsoir. yaa ci jàmm. noo paree tey anniversaire bi. jàmm ak salaam. damay. bu mu wax parce que damay garder voix bi mais jàmm ak salaam kontaan mbégte. looy wax euh, askan bi nga xam ñoo nekk ci biir bu si la di leen wax kontaan naa ci ñoom di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan rek yal na jàmm sax Sénégal. di leen remercier bu baax ci déplacement bi. ñu ngi gis sa borom kër mi ngi fi yor organisation bi boobu ba tey moom lan nga koy wax. Euh, merci beaucoup voilà parce que ñu bokk liggéey bi. ah di ko remercier bu baax a baax a baax di remercier aussi Djidiack sama équipe yëpp voilà di di leen wax nag sama team a ngi nii ñoom Moussa Versailles Awa Ndaw ñëpp ñëw nañ ah comme d'habitude euh, Thiané donc voilà gars yi egsi nañu pare nañ pour bégal leen. mën nañu xam kan moo génne Viviane tey ci robe bi. Moussa Versailles mi nii. Ah, mais des na yeneen surprise ci sañ-sañ. comme daaw ah. waaw. ndox du bàyyi yoonam. déedéet. merci. maa ngi ci jàmm waaw. <laughs> ñu fekk la tey ci soirée Viviane bi dañoo bëggoon xam tey lan moo fi nekkoon sa teewaay. donc euh, dama fi teew parce que man maa koy coiffé donc je la coiffe depuis toujours depuis très longtemps depuis jiin leen bi ñu nekkee xale ba léegi waaw. mi ngi naan sama tima ngi nii kon dañoo da bëgg a wax ne tey bopp bi nii mu mel yow yaa ko yaa fa jaar. waaw maa ko maa fi jaar te di nga gis changement yu bari di nga gis robe bu nekk ak li muy àndal voilà ñooy tim ñooy tim fépp fu ñuy dem rek ñooy ànd voilà. foo leen dem rek wane fa seen voilà fu ñu dem il faut ñu wane suñu bopp dañoo am empreinte voilà. dañu buggoon xaw a Awa Ndao temps yi ci lan la ah non ci génne fashion génne yu bees tendance je suis très tendance bu ma ko foowee lu nekk ak lu muy àndal voilà. yaa ngi génn ci euh, xeetu couleur yu xew yi a ah oui obligatoire lu nekk lu muy àndal jamono couleur lañu nekk ak été donc dañuy ànd ak moom voilà et toujours glamour aussi voilà. léegi looy wax euh, waa Télé Sénégal ak sam fans yi nga xam ne ñoo lay seetaan mbokk internet. ba maa ngi remercier ñëpp di remercier ñëpp ci jàppale bi depuis toujours parce que ça fait 28 ans que je coiffe donc maa ngi euh, et maa ngi leen di wax ni que maa ngi préparé ay tendances yu bees pour les fêtes de décembre voilà. merci merci beaucoup. salaamaaleykum. maaleykum salaam ça bien. Euh, ça va. bien. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waa. Euh, Viviane moom ma leen joxoñ ne yéenay timam. waaw ñun ñooy timam fu ñuy dem ñooy ànd man maay maquilleuse. waaw noo tudd madame. Maria Dapina. Maria tey lan nga maquillé Viviane nii ci euh, ci entrée bi. par rapport laa ko maquillé ah différents types de maquillage. yow tey loo leen di pare après ci waaw loo leen ci kanam euh, ci kanam euh, di ngeen gis paillettes di ngeen gis euh, maquillage traditionnel moderne un peu de tout léegi kon tey yow pare nga daal pour jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo ñëw wuy si bien bien sûr <laughs> merci bonne soirée merci bien yaa ngi ci jàmm mais li nga def nii tey mooy lan ah sama anniversaire couple la baax copine Viviane la. oui laa tudd. Hmm. noo dundee soirée bi tey. ah soirée bi ah. xanaa fi hmm. relax nga daal. yaa ngi soulagé. merci bonne soirée. lii ñàkk te mënuma ko bañ a def dama leen doon ñaan benn une minute de silence ah, ñëpp jóg pour sunu papa sunu tonton kilifa bu mag Bruno Diatta merci. Merci beaucoup.